ndax leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV Sénégal journaliste bii di Serigne Saliou Gueye yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci mobilisation ak cagnotte bi nga xam ne ne président waa parti bii di Pastef moom moo ko daal di oote suba ci stade Arena si li ni mel Serigne Saliou Gueye ne Ousmane Sonko bu amalee ay sorti en tant que premier ministre wala en tant que président parti bii di Pastef ne opposant au premier heure bii di Bougane Gueye Dany day génn à chaque fois daal di koy contredire ne kookee nag di Bougane Gueye Dany logique pour logique ginnaaw ba président wu parti bii di Pastef te muy Ousmane Sonko génnee daal di lancé akub cagnotte bi nga xam ne ne dañ koo namm jëmmalee akub ziga meeting biir Stade Arena ne si li ni mel kookee di Bougane Gueye dafa war a daal di topp logique am dal di lancer momit akup akub ngandam koñot bo nopi dal di ci tek akub meeting ne li ni mel bu ko bugan gay amolon, ba dal di deugal bopom dal di won sénégalais yi ke ne mom mën na rassembler waye tamit bu lancer akub kañot sénégalais dañ koy codiser kon bepp observateur bu melni mom bu toge dina dal di wax ke ne premier ministre bi di Ousmane Sonko wala jitalu parti bi di Pastef te moy Ousmane Sonko am ngandam problème ndax kookee di Bougane Gueye Dany akub sérieux opposant la waaye ne seetlu na que ne kookee di Bougane Gueye Dany ci opération ti bu tànk bu muy amal jëmale ko ci premier ministre bii di Ousmane Sonko ne kookee ci conférence de presse la ko daal di yemale ndax ne premier ministre bii di Ousmane Sonko ginnaaw ba mu njëkkee woon a oote ca Grand Théâtre ne kookee di Bougane Gueye Dany daa oote woon ne day topp tànk kookee di président Ousmane Sonko waaye ne au dernier moment kookee di Bougane Gueye Dany dafa génnaat raxasuwaat ci li ni mel ba daal di set wecc mais tamit ginnaaw bu premier ministre bi di Ousmane Sonko oote waatee Stade Arena kookee di Bougane Gueye Dany xaajul sax ba koy jéem a toppaat ci opération boobee donc ne kookee di Bougane Gueye Dany moom ci wax la yem waaye premier ministre bii di Ousmane Sonko waaye tamit njiitalu parti boobee di Pastef tamit Ousmane Sonko kookee day wax di jëf di leen nappaale di leen woon que ne moom mooy le maître du jeu ba tey ba suba ba gannaaw suba.